naa ca la coow la jeexee amatuñu lu ñuy wax lu dul ay xaw naa niroog PSE jegewul sax ps PSE e dafa jaar nii suñu programme jaar na le kon jox ngeen majorité écrasante le président Diomaye ñu jël pouvoir exécutif muy benn pàcc bu am solo waaye nag il faut ñu mottali ko parce que gouverner mooy leng yi gouverner yépp président la république ak gouvernement bu ñu toogoon fale di jël xam ngeen président moom décret la am waaye décret dafa am fu mu limité constitution mooy génne lan mooy du domaine de la loi ak lan mooy du domaine du décret kon décret lu limité la kenn mënul gouverner par décret par exemple kenn mënul voter sa budget par décret lu dul blocage am na wala cas de force majeure ñu may nga mën a jël décret waaye su dul loolu il faut budget ba dem assemblée kenn mënul surveiller l'action du gouvernement def ay commission d'enquête parlementaire ak yeneen lu dul de assemblée nationale la fonction de représentation assemblée nationale la waaye wax nañ ko léegi ñi fi def seeni njombe te tey ñu am privilège juridictionnel neew ñu kenn mënu leen atte de waaye dañu ne tribunaux yii mënuñu leen atte faw rek ñu taxawal haute cour de justice assemblée nationale ndax bëgg ngeen ñooñu layoog Sénégal kon yi yëpp bu dajee pour président Bassirou Diomaye ak gouvernement am lii nga xam ne mooy suñu programme ñu mën ko appliquer li ñu diglanteeg sénégalais ñu def ko xam ngeen ni faw ñu jot assemblée nationale waxuma nag ñu jotantu ko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 muy bi nga xam ne mooy développement durable et aménagement du territoire ak bi nga xam ne mooy souveraineté nationale. ci ñaar yooyu li ma ci bëgg a wax mooy dañ leen wax ni bi ñu jëlee réew mi malheureusement fi écran yi ni ñu féetee dafa féete nële ba pare lumière bi nekk ci moo tax du ngeen ko gis waaye bi ñu jëlee réew mi.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 te lépp mi ngi tënku nag ci ndakaaru nga xam ne matul 0,0 pour cinq cinq pour cent du territoire national nga jël parti centre bi mot 45 pour cent ci économie bi waaye boo jëlee partie sud ak sud-est sud-est bi ak sud-est mi ngi représenté 9 pour cent ci économie nationale. kon loolu la ñuy wax déséquilibre territorial inéquité territoriale ci développement réew nag boo ko buggee développé. faw rekk nga fexe ba mu am pôle yu bëri te pôle bu nekk am koom gu doy goo xam ne mën naa téye waa dëkk boobu foofu moo tax loolu mooy suñu premier pari ci suñu politique de développement boo jëlee fii ñu teg ñu teg Thiès bi mu ngi représenté un peu moins de huit pour cent ci PIB économie nationale loolu tuuti na wax na ko léegi moom Birame Souleye capacité yi am fii kenn xamul nu mu toll moo tax nag ci suñu programme ñu ne faw rek ñu jóg ci mbir moomu Thiès am na phosphate am na zircon Thiès am na suuf su nangu ci zone des ñaay bi mais ci yeneen zone yëpp loo fi bay mu nangu Thiès am na accès à la mer ak ay infrastructure portière fu mel ni Kayar ak feneen ak feneen kon booy seet ci pôle yi dafa mel ni Thiès Thiès am na capacité touristique su ma nee Thiès région bi laa wax mbuur a ngi ci tiwaawan a ngi ci comprendre li ma wax pôle de développement lañ leen wax boo jëlee pôle de développement bi moo dugal mbuur moo dugal Tivaouane moo dugal Thiès kon capacité ma wax ni dafa boole loolu yëpp. waa lan moo tax tey mënuñoo fexe ba loolu mu jëriñ waa Thiès jëriñ waa Sénégal léegi dañ ma wax am nañu fi tudd waxum ICS tey wax nañ ma ko bi ma jaaree ba am na yoo xam ne mënul mënuñu ko nangu est-ce que xam ngeen nii bëgguma sax mu mel ni damay singali benn entreprise waaye nag dañ leen yàgg wax ni alalu réew mi il faut ñu téye ko ci réew mi boo jëlee lu mel ni ICS ñetti convention lañ ko signé ñett de 1984 à maintenant mooy la seule entreprise bu am ñetti convention ñu jox ko ay avantages yoo xam ne du fay benn impo benn impôt benn impôt du ko fay bañ a ba ma defee calcul ci ñeenti at yu weesu li ma waroon fay impôt rek. mat na 150 milliards yoo xam ne nee na France benn impôt du ko fay nga dellu si waat ñu ne la redevance yi nga xam ne sax dañ dañ ko ne mu fay ko tey ministre bi yor loolu mu ngi fii waa Ceesa di Birame Souleye bi ñu toogee la leen bind ne leen ameel ngeen ñu un milliard cinq cent de redevance dañ war a fay ñu lànk ne duñ ko fay ba tey ji waaye mag mag 194 milliards jum naa sax 111 milliards ñu ne duñ ko fay waaye ma gaaral leen dañ ko fay parce que réew mi nag dafa am boroom boroom réew mi mooy waa Sénégal nga dellu siwaat ñu ne la phosphate bi ñu fiy def di ko transformer engrais lépp dañ koy génne pratiquement yóbbu ko ñoom seen réew ba ñun suñu mbay nga xam ne soxna na engrais mënuñu am engrais bu doy dañuy dem di jéggaani engrais di ko importer loolu yoon la noonu mu amee foofu noonu la amee ci ñeneen ñëpp nag moo tax bi ñu toogee ñun li ma njëkk a def président nangul ma ko mooy ñu taxawal benn kuréel boo xam ne moom la ñu tuddee commission de relecture des conventions et des contrats commission boobu ngi liggéey fii ci primature amul benn secteur boo xam ne dina ci mucc du pétrole du gaz du phosphate du zircon du accord de pêche du infrastructure lépp dinañ ko luñetu ba mu mat sëkk lépp lu luñ ci deful ci intérêt Sénégal ma wax leen ko fii dinañ ne woon ba ñu ñëw toog ñu leen lii mënut a nekk jaaduwut ñëw leen ñu waxtaan su ngeen d'accord ñu waxtaan su ngeen d'accordul nag dinañu xam fu ñu jaar waaye dinañ jëlaat suñu yëf. lii promesse de campagne la te dinañ ko def parce que xam ngeen lan mooy premier dama mus a wax président ma ne ko gis nga mandat bi moo war a nekk mandat bu ñuy régler définitivement un de nos problèmes les plus cruciaux mooy la question du financement de notre économie et de nos politiques de développement réew mu mënul financer ay politique am lu dul taxawal plan jël sa avion dem ci tubaab yi di ñaanaatu ak di leb réew moomu mënul dem ci jamono joo xam ne yàlla may na la alal gune nga tayle ko cest à Sénégal booy seet dafay mel ni ñun ñi ñu jiite dañoo am problème yow boo amee or joxe boo amee zircon joxe boo amee pétrole joxe sa suuf nga joxe jën gi nga joxe ba nappkat yi amatuñu jën ba pare ngay wër di tàllal sa loxo di ñaan ak di leb est-ce que loolu jaadu na. moo tax suñu premier problème bu ñu war a régler mooy la question du financement de notre économie te mi ngi jaar ci mesures yi ñu war a def boo jëlee nag région de Thiès soo seetee ci suñu la vision 2050 dañu ne axe yi ñu tracé ay filières ñoo koy lal parce que Sénégal mooy réew moo xam ne amul benn filière boo xam ne am nga chaine de valeur complète li may wax nii xaj na seen bopp bu leen kenn gëm lool ak ni gis ngeen intellectuel yi wala politiciens yu dëng yi bu ñu leen bëggee nax dañuy ñëw naan leen noo lii c'est trop technique lii ñu am xam-xam rek ñoo ko xam li may wax nii bu ngeen ma dégloo comprendre ko te xam naa ni comprendre ngeen ko dañ leen génneel ay axe mais axe yooyu dañ koy lal ci ay filières yu ñuy développer parce que Sénégal amul benn filière boo xam ne am na chaîne de valeur complète chaîne de valeur complète mooy depuis extraction bi wala bu dee mbay mi depuis bu ñu koy bay buñ koy transformer ba bi koy commercialiser amul benn benn Sénégal boo xam ne mun nga ko jël nga ne am nga chaîne de valeur complète réew mu mel noonu nag réew moomu amul koom-koom amul économie ñun nag suñu mandat dañu ne ñun li ñu jitteel mooy tabax économie d'abord parce que boo tabaxee économie ba sa mbay dox sa càmm dox say ressources naturelles nga téye ko ci réew mi fii am na gaz ñun biñ ñëwee liñ fi fekk nee nañu gaz bi signé nañu ay dañ koy liquéfier mooy dañ koy def liquide def ko ci ay bateau génne ko dem jaay ko biñ ñëwee dañ leen ne ñun loolu du suñu option gaz bi dañuy def pipeline jël liñ ci soxla indi ko fii transformer ko fii ci senegal parce que à l'horizon 2050 tey on a 1900 1900 kilowatts le Sénégal di produire à l'échelle 2050 il nous faut 10 000 kilowatts de plus donc gaz bii la ñu mën a jël boole kook li ñuy def ci les énergies renouvelables loolu ñuy permettre ñu am suffisament d'énergie pour taxawal des industries ba am excédent mën a jaay énergie yeneen réew yi réew noonu lañ koy defaree ñi développé yëpp noonu la ñuy def waaye ñun lu ñu am tay ko. kon ñu ne filière yooyu il faut ñu tabax ko pôle bu nekk nag pôle bu nekk seet nañu lan mooy ay potentiel am ñu ne filière yi ñuy tabax foofu lañ koy tabaxee fii Thiès su ma nee Thiès nag waa Mbour yi di ma wax Mbour ci Thiès sa bokk région bi laa wax ñu ne Thiès lan mooy ay filières yi nga xam ne mën nañ ko fi def ci lu gaaw a gaaw mu jëriñ réew mi bu ci njëkk mooy filière des cultures maraîchères ku wax maraîchage wax Thiès waaye maraîchage bi sooxe na lu bëri dañuy dañuy tuur ji bi dañuy tour récolte bi fii parce que amuñu sax des chaines de stockage ou de conservation ñaareel bi mooy filière manioc wala filière horticole yi de manière générale waaye Thiès ñëpp xam nañ ni potentiel bi mu am war nañ développer fii benn filière boo xam ne filière matériaux de construction la su ma nee matériaux de construction nag du ciment bi rek defe naa région de Thiès am na au moins benn cimenterie wala ñaar ñaari cimenterie Dangote ak euh, Ciment du Sahel Thiès la nekk waaye am na ñetteel mooy marocain yi d'accord waaye loolu benn la. tey defe naa am na ñuy fabriquer ay carreaux fii te ci région de Thiès ñu nekk parce que li ñuy defaree carreau bi matière première bi am na Thiès ak yeneen ak yeneen moo tax ma ne filière matériaux de construction suñu ñu nee filière phosphate fertilisant loolu yàgg na am Sénégal waaye dafa mel ni bu njëkk ba sax amoon nañu ICS dém ba am seen Senchim ñu fexe ba rey Senchim defaratuñu engrais defaruñu dara daa def ay accord jël ICS tayle ko jox ko waa bitim réew ñuy jël lépp di yóbbu kon su ma leen nee loolu dinañ ko renégocier te ci fan yi dinañ leen woo ñu ñëw toog bu ñu paree càmbar gi filière boobu bokk na ci filière yi gën a gaaw a développé Sénégal te ñu am ko fii am ko Matam am ko Daaru Musti muy phosphate boo xam ne phosphate de qualité la est-ce que xam ngeen ni Maroc phosphate moo ko développé Maroc amul pétrole amul gaz amul amul amul waaye bi ñu toogee ba ñoom gis nii te ñii ñu jox tey ICS est-ce que xam ngeen ni ñoom ñoo yoroon phosphate bi waaye marocain bi ñu toogee ba roi bi gis ni lii baaxul ci ñun daf leen fa jëlee nationaliser euh, euh, euh, phosphate bi tey premier facteur économique ba ñu tabax ci ay université technique mooy phosphate l'office chérifien du phosphate c'est l'une des plus grandes entreprises d'Afrique aujourd'hui ñun ñu am phosphate depuis longtemps tey la ko ñu koy génne ci réew mi kon filière phosphate et fertilisant filière industrie du verre ndax zircon ngi fi ak leneen ak leneen et enfin tourisme su ñu nee tourisme nag ñëpp dañuy jàpp tourisme balnéaire rek ndax salee ngi fii ci biir Thiès waaye am na aussi le tourisme religieux ndax cees dëkku diine la Tiwaawan a ngi fii Njaasaan a ngi fii Cenaba a ngi fii Kër Maam Alaaje ngi fii ak feneen ak feneen kon war nañ ko fee mën a def kon Thiès it mu am lu ñu fi démarré te ñun ñu bëgg koo accéléré mooy plateforme logistique et hub aéroportuaire ndax soo bëggee def port de Ndayane ak port de Bargny lay logique mooy nga fexe ba benn pôle urbain daal di soqiku ci gannaawam muy un des projets importants industrie extractive et manufacturière nouvelle ville pétrochimique parce que wax naa leen léegi ni gis nga pétrole ak gaz lu mel ni pétrole li ñuy wax produit dérivé du pétrole moo ëpp valeur fuuf sax yenn saay pétrole bi ci boppam ndax kuy suivre évolution àdduna xam ni pétrole mi ngi beese gaz gi moo ëpp valeur fuuf pétrole waaye li nga mën a jëlee ci pétrochimie à partir du pétrole ak du gaz nga xam ne mën nga ci defee ure loolu moo ëpp valeur te ngay defee ay industrie te potentiel baa ngi fii ci Thiès ñu ne nag la jëm ci les industries agricoles et l'agro-industrie potentiel bi yëpp mi ngi ci Thiès lii moo nekk ci vision 2050 bi ñu leen présenté keroog waaye ñu faram-fàcce ko ci plan d'action gouvernemental bu juróomi at yi 2029 faram-fàcce ko ci li ñu tuddee master plan 2034 waaye la ci des doon ay échéance de 10 ans 10 ans 10 ans lii nag lu ñuy liggéey la ci anam goo xam ne faw rek population bi comprendre xam fi ñu bëgg a jëm ñu ànd ak ñun seen tànk suñu tànk parce que dafa am lu war a jeex ci réew mi fal nit ba pare raxasu si dem toog ne sama yoon new ci na ma réglé lu ma lekk ak lu ma naan waaye sama yoon new ci déedéet réew dafa am nu muy doxee dama wax léegi problème financement réew fan lay jëlee lu koy doxal li ñi dañ naan état état état état président Bassirou joomay fay yorul lu mu mën a dundalee fukk ci yéen sax waxuma laa lu mu gérer problème yépp waaye état dafa am fu jëlee ay revenu am bi ci njëkk mooy lempo l'impôt boobu nag nañ ci def réforme nañ ci def réforme ci fan yi ndax dama wax ni euh, lempo gi gën ci lempo gi mooy bi nga xam ne la ñuy fayeeku yemamaay na waaye ñëpp daje fay ko moo gën nga jël ay taux yu kawe te ñenn rek a koy fay waaye bi ci njëkk mooy l'impôt réew mi la gën a mën a fay l'impôt moo la ëpp capacité ñaareel bi mooy li nga xam ne mooy li la yàlla wërsëgale ci ressource naturelle nga gérer ko bu baax ñetteel bi waroon doon loolu sax du levier de financement ci boppam waaye mën na jàppale économie mooy nga am sa monnaie boo mun a gérer mu méngoo ak sa économie loolu ci lu ñuy financer réew la ñetteel bi mooy li nga mën a jëlee ci contribution yi jóge ci les ressources longues comme li nekk ci IPRES wala caisse sécurité sociale yu demee noonu ñu utiliser ko walla li ngay ubbi te temps yi nañ ko def nag mooy li ngay ubbi ne sénégalais yi. ah man de bëgg naa defar telle infrastructure bëgguma ko lebe ci biti waaye damay émettre li ñuy wax patriote bond yéen a ngi dégg ay euro bond ñun bëgguñu koo jële ji Europe patriote bond laa bëgg bëgg naa 500 milliards yow waa diaspora yow mi ne Sénégal yow ak yow ak yow léeg-léeg mu ne infrastructure yoo xam ne da ngay dugal sa xaalis mu jur ñu delloo la sa xaalis kon lii bokk na ci li ñuy financer économie bor doog a ñëw nag dem di lebi ci feneen fu bokkul ak foofu waaye yi ma njëkk a tënk yëpp kan moo koy doxal citoyen bi moo koy doxal am na ku ne léegi nañu créer emploi xam nga emploi lu koy créer état nu mu bëgg bëgg jël dafa am fu mu yem tey masse salariale bi li ñuy fay ci salaire état di ko fay dépassé na 50 pour cent ci budget bi. kon lan moo des pour nga tabax ay école nga tabax ay industrie premier vocation état du employé waaye état day créer les conditions pour ay entreprise juddu entreprise yooyu ñooy créer des emplois ci loolu lañu jublu kon fi ñu bëgg a jëm fi ñu bëgg a jëm leer na naññ ci suñu bopp te dinañ fa yegg bu soobee yàlla waaye on a besoin de chacun et de chacune d'entre vous te mu ngi commencé ngeen jox ñu majorité absolue écrasante à l'Assemblée nationale lii nag li tax citoyens yi citoyens Sénégal bañul bañul contribuer li koy firndeel benn bokk na ci mooy tey Pastef saa yu wootee ñu wuyu ko keroog Dakar Dakar Arena benn bës rek 525 millions lañ fa levé kon citoyen yi ba ñu joxe ku fi sa daayira woo nga joxe ku fi sa sëriñ xewle nga joxe ku fi euh, sa sa wala sa sa sa village xewle nga joxe kon bañu ñu joxe li tax ñu bañ a joxe su dee impôt parce que citoyen bi gëm na ni li may joxe la ci ëpp ay politiciens ñoo koy damm seen poos loola tax citoyen yi sawaruñu ci joxe. moo tax ma bëgg leen assurer quelque chose ma waatal leen ko fii billaahi wallaahi ma waatal leen ko fii xam ngeen lu ma bëgg ngeen xam xanaa xanaa lu ñu xamul ñun lu ñu xamul man lu ma yéegul chaque jour ma wax ko du mënaas nag ministre rek directeur général rek directeur rek chef d'agence ak ku ma yéeg ni jël nga fukki dërëm boo moomut non seulement doo yendu foofu waaye di ko layoog yoon te lii ma wax nii maa ci gën a tuuti dangar ndax xam naa fi mu fi mu toll président Bassirou Diomaye Faye man xam naa ko réew li koy defar mooy alalu mbooloo nañ ko bàyyi mu dellu ci mbooloo mi kenn ku ne lañ lay fay na la doy nga yem ci loolu waaye kenn ku ne ku ñu fal foog nga ni da nga war a nekk millionaire wala milliardaire ku bëgg loolu dangay dem ubbi usine dem liggéey loolu yàlla wërsëg nga xam ni lii la fonction publique kenn du ci nekk milliard milliardaire fonction publique. président de la république ne leen 4 millions 800 lay fayeeku man 4 millions 300 lay fayeeku naka la ñuy doonee ay milliardaires kon ku ñëw taxaw yor ay malet li xew ci réew mi maar day taali dañoo sàcc sàcc sàcc sàcc ba amatu ñuy sàcc ngeen jéggal ma ci kàddu gi lépp la ñu jaay lépp lépp moo wax leen lu gën a gàtt est-ce que xam ngeen ni prison Rebeuss bee est xam ngeen ni jaay nañ ko prison Rebeuss te xam ngeen luñ ko jaayee huit milliards prison Rebeuss plus d'un plus d'un hectare à dakaar nga xam ne tout gën saa gàtt mën na jar quarante milliards ñun bu ñu egsee ñoo ko bloqué ne annulé nañ ko ñoo ko annulé. ma wax leen ni loolu loolu lu gàtt la de loolu xam nga Amadou Ba léegi wax na mbuurkat mais lu ne lañu jaay gis ngeen prison Cap Manuel bi nga xam ne man fa laa woon bi ñu génnee ba yàlla jox ñu nguur gi bañ ma andile kayit yi ma xool ndekete jaayoon nañu prison Cap Manuel ba toog man xam naa dañ ma naroon jaayaale gars yi yóbbaale moo tax. moo tax gis ngeen wax ji bari na gis ngeen wax ji bëri na wax ji bëri na waaye xam ngeen lu indi wax ji mooy tiitaange ak ragal parce que kenn ku ne ci ñoom xam na li mu def te ñu bëri foog nañu nag bu ñeen bu ñu amoon mandat ba dem assemblée nationale raw nañu déedéet ndax bu ngeen ñu joxee li ngeen ñuy jox muy majorité absolue écrasante ku fi luubaloon te ñëw nekk député ci benn fan la ñuy teggi sa sa immunité parlementaire nga dem layoo ko loolu yomb nañu waaye yooxu beeg daw beeg yépp ci pour assemblée nationale mooy jàpp nañ ni mën na leen permettre ñu dem làqu ji mbokk yi alalu réew mi loolu bokk na ci li l'un des plus grands combats yoo xam ne dañ ko war a réglé am na ñoo xam ne seen benn compte rek seen benn compte seen benn compte rek fekk nañ fa lu ëpp 1000 seen benn compte rek foog ngeen ni loolu jaadu na ci réew mi. moo tax defuñu ko parce que dañoo soxor wala dañoo bëgg a lor nit waaye est-ce que d'accord ngeen loolu yëpp ñu bàyyi ko mu romb moo tax alal gi faw mu dellu si si réew mi waaye bu dellu see ba noppi kenn ku ne na xam ni dootuñu nangu ñuy dénk nit responsabilité muy randal alal réew mi moo tax pôle bii nga xam ne mooy poolu cees gannaaw bi ma leen waxee filière yi ñu fi bëgg a développer potentiel bi fi am lañ ca teg mooy fenn fu ne ci dëkku Thiès yi am nañu destination bu ñu ko bëgg a yóbbul Thiès ci boppam ak Mbour bëgg nañu ñu doon des métropoles d'équilibre parce que il faut de de très grandes ville Dakar déjà métropole la. waaye Dakar suñ ko buggee des désengorger il faut ñu am des métropoles d'équilibre mooy dëkk yoo xam ne déjà am nañu dayoo boo leen yokkee tuuti rek mën nañu doon à l'image d'une capitale moyenne Thiès mën na ko ne Mbour mën na ko ne Tivaouane bëgg nañu mu doon une métropole régionale mooy à à la dimension de la région Tivaouane doon une métropole pas la à la dimension nationale Pout Kayar Mexe Xombol ak Caajaay la ñu bëgg liggéey ci ñoom mooy ñu doon des villes secondaires Pout ak Pire piir gu rëy la ñu bëgg a ci ñoom mooy ñu doon des centres de service agricole mooy bu ñu bayee ci biir Thiès mën ko indi foofu gannaaw transformation mu doon des des des des pôles d'éclosion pour ñu distribuer à travers tout le Sénégal. Kayar Taïba Mboro ak sa njara bëgg nañu doon des centres industriels Kayar Taïba ak Mboro Popenguine Taïba Niassène ak Pointe Sarène dinañ ko développe ci tourisme tourisme balnéaire waaye ak tourisme religieux également noonu la amee ci dëkk yi ma cité ñuy dëkk diine Mékhé centre artisanal d'excellence spécialisé dans la cordonnerie loolu moom lu am la ba noppi waaye dañu bëgg mu doon un centre d'excellence ndax suñu cordonniers yi kenn gënu leen ay waaye il faut ñu may jàppale leen ci ay machines yu moderne ba lu waay di def feneen ñu koy importer ñu mun koo def fii di ko exporter Tekes ak Touba Toul ak sama dëkk Xombal ak Ngunjaan bëgg nañu ñu doon des centres commerciaux structurants xam nga loolu amoon na ci jamono tubaab. fu bëri dafa doodoon da ngay dem fekk fa ay périsac ak ñu mel noonu c'était des centre commerciaux noonu lañ ko bëggee foofu Joal Fadiouth centre alio industriel et touristique Diass pôle aéroportuaire Ndayane pole portuaire et enfin Dagoxolpa pôle urbain lii mooy vision moom la ñu andi teg ko te kenn ku mënul wax ni ci ñi ñu jiitu woon mës nañu andi vision bu leeree nii ñun ñooy ànd liggéey ko te mi ngi jaar par une victoire écrasante ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dajug daje une prochaine fois asalaamaaleykum wa